xam nga tey xam nga tey F24 yàgg na wax ne day def ndaje foofu ca place la nation uh-huh. defe naa depuis le début depuis longtemps uh-huh. kilifa yi mënoon nañ ne si c'est accordé depuis laa la wax depuis nga xam ne dañuy ñëw rek taxaw wax li ñuy wax dem si doom yow mën na daf ko doon def place la nation obélisque uh-huh. kilifa yii nekk ci nguur gi dañ fa daan fees dell. di teg la ay fan yi fan yi fan nekk fa. y pas problème dañuy taxaw wax bu ñu paree dem tey président Macky Sall ñi mu àndal lànk ko en écrivant à la préfecture loolu nu mu tudd Baye Diaga ah, euh, maanaam bind bi ñoo bind préfecture. non mami rek ngeen ne na ma trop métti na ma lool waaw. non mami da lay tooñ da lay tooñ préfecture. waaw préfecture. da nga kaa bind lettre. waaw naanam yëgal yëgal yëgal que ne que damay dem place la nation taxaw fa comme ça mu organiser sécurité beeg la sa des c'est la sécurité publique léegi préfet bi moom li noo def nii tàmm nañ ko tendeefal tendeefal ba dernier moment ñu leen bon finalement c'est pas autorisé wala c'est autorisé. si c'est autorisé en amont stratégiquement day yombal liggéeyu F24 ñëpp dañuy sawar a dem. day gaaw de nguur gi nag day jàpp ni naa leen ragaloo ba nit ñi duñu sawar a dem. comme ça manifestation ba yàqu. loolu c'est un acte politicien. waaw malheureusement léegi nag nguur bi moom comme tàmm na di gis ne population bi ñu ngiy def nii mi fig mi raisin moom day doxalee noonu di bu baax day doxalee noonu pour décourager. léegi waa F24 ñooy am détermination pour egg fi ñu bëgg egg mooy comme par exemple Sonko ak waa këram yi taxaw ne dialogué wuñu ils sont fermes et ils ont raison d'être fermes dégg nga wax bi fermeté boobu nag lay F24 di am moom it pour organiser léegi nag lenn si nekk mooy dañuy yëgg fenn foo xam ne bàyyi jàgg kooku na la woo après na bàyyi ba après mu woo la mu baal no a nga dégg am na fenn fu ñu yegg foo xam ne F24 danaan damay marche ci nii wala ci ne damay def sama rassemblement ci nii wala ci ne ñu dem ca wala mu ne malheureusement préfecture nee na foofu la ñuy nattee détermination foofu la ñuy nattee engagement foofu la ñuy nattee envie de faire la chose dans un sens léegi li xaw a nekk ci mbir mi aussi moo di ne F24 d'accord depuis le début ñu ngi leen di suivre maa ngeen nuyu ñoom daaw dëgg Euh, bi ma jot démb daaw na li nga ma waroon yónnee nag euh, ci document yónneewuloo ma ko ndax man dama bëgg a li F24 signer dama ko bëgg a signer ak samay moroom donc yónnee nu document bi ñu signer voilà ñu signer quoi ñu xam ne si lii la ñu tegu waaye waaye malheureusement xulil malheureusement on est obligé de dialoguer xulil neexut a dégg nag lii li may wax nii day dagg xol on est obligé de dialoguer avec le préfet on ne veut pas de décision boo xam ne du dem à l'encontre de la rencontre bi ñu bëgg a taxawal ñun waa F24 je dis comme ça F24 mm-hmm. malheureusement on est obligé parce que moom moo fi nekk l'autorité bi ñu war a adressé mm-hmm. moo tax wax ak dégg foofu la noo waxee te malheureusement c'est comme ça mm-hmm. par exemple waa F24 ils sont fâchés contre tous les préfets du Sénégal mais malheureusement ils n'ont pas le choix ils vont devoir s'adresser loolu moo la dëgg moo tax xeex dafa laaj muus. ñun nag muusuñu ñun muusuñu maanaam daal ci gàttal sukk daal du tere yóbbu say ëpp. Mm. non du sukk sax. Mm-hmm. non du sukk sax du sukk. Mm. ci war ma la am jëluma mm-hmm. bëgguma bëgguma bii bii laa bëgg mm-hmm. boo ko mu mënee ñu déggoo mënuloo ko yaa xam jël sa pause ma jël sama pause nu raak mm. noonu la donc tey préfecture les gens vont vont avoir deux choix entre deux choix yi c'est l'un ou l'autre dañuy def rassemblement ok autorité bi accordé na toog na ba midi wala ba treize heures accordé na ko autorité bi toog na ba midi wala treize heures accordé wu ko n'empêche nous sommes déterminés dañuy rassemblement mais mais coow li mooy c'est-à-dire que ni ni mu amee ni mu amee ci ci ci yoon délai boo xamante ne moom la ñu la moom lañ moom lañ la jox yow. nee na mm-hmm. boo waree def manifestation war ngaa mën a bind euh, demander autorisation bi ci ab diir. est-ce que ameewul noonu itam maanaam diir goo xamante ne préfet bi ca la la war a tontu accordé la ko wala déet parce que toog ba ak quelques heures euh, de manifestation bi war a am ñu toog ba ci waxtu woowu ñuy door a xool di dute ba xam ndax dana amam du am loolu itam ndax euh, doy waar. mais après ñoom bu ñu koy expliquer kilifa yi. Mm. dañ naan non vous savez c'est la sécurité publique nous devons mener des enquêtes. Mm -hmm. nous devons maanaam dañoo nekk ci jamono boo xam ni. Mm-hmm. jamono bi ñu nekk. Mm-hmm. lu métti la Sénégalais yi di dund. moo ne dañ ko sekk ak ñoo xam ni ñun ñëpp xam nañ seen taxawaay. yaa ngi wax lu am solo. billaahi wallaahi tallaahi li ma wax nii li ma gëm la. mën naa juum nag amaana damaa juum ba xalangu certainement waaye <laughs> la réalité est que malheureusement sunu ay prix li ñoo jëndee ñii nga xam ne ñun bëggatul leen ñoo fi ne. li li boo demee douane bi laa signal kayit ya malheureusement ñii nga xam ni bëggatul leen ñoo fi ne ñoo kaa signé waa ndax damay gedd kayit ga am na loo xam ni tey Ousmane Sonko fa mu toog nekk maire de Ziguinchor su ko soxlaa dafa laaj le préfet te Ousmane Sonko d'accordul ak préfet boobu ñaata yoon la son ko def ay événement invité leen moom préfet boobu ak ñeneen ak ñeneen ñëwuñu waaye kayit boo xam ni administratif la bu ko soxlaa da ka yónni kon kooku a ngay wax ak moom mu neex la mu naqari la kon muus bi mooy manifestation tey bi rencontre bi dafa am nag lu siy jiitu laaj ma la na laaj ma. lan la lu ci jiitu. communication stratégique bu fin fine nit ñi sénégalais yii ñun ñëpp ñu ngay toog génn leen génn leen waaw jóg leen ñu jeexal li nangam nang wax ji bari na daa wax ji du demee noonu dafa am luy jógloo nit ñi mm. te liy jógloo nit ñi dafa spontané. day nekk luy dajaloo luy dajaloo tànk ñorul du am tànk nag ñor ba egguloo sa dangaa doxal nag ak stratégie ba keroog nga saa egg F24 woote nañu mais yow ci sa conviction est-ce que est-ce que am nga gëm-gëm ne dëgg-dëgg euh, ndajem F24 bi bu ñu fekkee autorisé nañ ko dana am taux de réussite bi ñu ciy yaakaar foofu nag laay waxee communication stratégique. bu fi oui maanaam communication bi nga xam ni opposition mu ngi kaa def dafa warut yem ci conférence de presse. oui mais sauf que sauf que F24 opposition kese aussi. non société civile la. mais jàpp naa ni société civile bu àndul ci li fi xew opposition la mm. mooy jamonoy Alioune Tine mhm. ba ñu koy kot ca koñ ba fële ca boori kër Farba Senghor ca ginnaaw di ko sonal. c'est parce que on le considérait comme un opposant ñoom Danson exactement basanu baay bi Moustapha Niasse di gàddu xeer il était considéré comme tel ca wetu Alioune Tine may wax rek ne li noo wax nii moom mbir moom dëgg moom li dëgg lem la waaye moment bi ñu kaa wax bu fekkee d'accord loo ci day doon lu naqari lu soof dama ne F24 comme opposition bi conférence de presse yu bare yi du loolu ndaje mu bare mi di wax ak presse bi du loolu xam nga mbir mi lal la informer population yi ci seen ay jafe-jafe par rapport ak nin kaa dundee information bi war a jàll ci presse bi su jàllul ci presse bi nu fexe ba information bi di egg si nit ñi ci ay pexe yeneen ak yeneen ak yeneen réseaux sociaux yi doyut nous sommes sept millions de sénégalais suñu bëggee sénégalais yépp comprendre li xew comprendre enjeu yi comprendre comprendre comprendre il faut faire du marketing direct il faut aller vers les gens toog ak ñoom ci biir kër yi il faut aller vers l'autorité religieuse toog ak moom ci lu officielul lu officieuse ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc la rencontre d'aujourd'hui bu nu ko autorisé amaana nit ñi dem fa mais bari na ay rencontre yu fi am nit ñi dañuy toog seen kër yi ba pare di kaas loolu aussi c'est une réalité mais loolu nag moo dul yoon par contre c'est une réalité mais loolu nag moo dul yoon waaw loolu nag moom man man ma wax nag foofu la ne ma wax foofu la ne Baye Diaga dafa wax lu am solo da ne bu la nguur attaqué. Mhm. nga résister. Mhm. mooy jihaad. son maam Serigne Cheikh ne jeexaat du dara lu dul résistance. Mhm. résistance nag mooy dañ laa attaqué yaa ngi nekk nguur boo xam ni daf laa sonal nguur gi kat fatt na la sonal na la dangay ngay jóg song ko moment bi ngay jóg song ko nag day fekk nga mën kaa song su fekkee mën a goo ko song da ngay raam jóg puus ba téye boo téewee ngàdd ka ngàdd pan mu yegg teer mais da wóor ne kuuba ba nga ko war a porté dal na waaye di xeex xeexab dof la dóor la laaw doo jot da ngay bàyyi ba mu jot nga teg ko Balla Gaye buy dóor ci làmb day taxaw xool nat xulil ne nii xulil bàyyi jaaga xulil fii ne nii ne nii bu nee nii ba mu leer ka mu teg ka sax dëgg waaye tant que leerul boo ko fa bëggee teg ñun ñu ñu uppercut la foofu la noo waxee. donc F24 pour que mu am mbooloo bi mu soxla tey dafa dépendre autorisation bi parce que bu ñu nee autorisé wuñ ko boo melee ni Baye Assane da nga naan si ah malheureusement foofu ay coow rek la ñun ñëpp xam ne Sénégal yi noo dunde ah booy foofu day day métti yu baan man am naa yow si ma te loolu mooy li sonal opposition bi mooy lu nu sonal donc il faut continuer la politique de conscientisation davantage des masses mais via des stratégies fines. d'accord Assane xam naa damay damay bëgg sax eh, dafa am ñaari lu Pa Assane waxul am solo.